moo tax waxuma pour jooytu waaye ñaari at yi weesu ma kisal ak ñi mu àndal teg nañ ñu man ak sama njaboot teg nañu injustice boo xam ne teg nañu ay metit yoo xam ne yàlla rek moo ko xam ñu muñee ko yàlla nag ndax ku mu ngir yàlla rek yàlla jeexal ko fenk nañu seen fen boo xam ne fen mosu koo gën a rëy daal koy def ci anam goo xam ne lañ ci njëkkoon jublu mooy nañu gaaw jàpp ko tëj ko kaso ngeen taxaw ne loolu du fi amee askanu Sénégal yëpp taxaw ne du fi amee ñu dellusiwaat ne comme loolu am na nañu naxante dem uti doole waaye ci diggante bi nañu attaqué këram fexe ba tas këram tas njabootam métital ay soxnaam métital ay doomam daal di yónnee ay nit ñu nekk ci média yi suba ba ngoon jot fu mu gën a ñaawee rek ñu tibb wax ko ci sama kaw loolu musul am ci politique Sénégal musuñoo yegg fii wallaahi nit gënul bon Macky sal ci suuf man maa leen ko wax nit gënul bon Macky sal ci suuf parce que politique jarul yenn yi nguur jarul yenn yi te ñi muy yónni ñu nekk ci télé rajo yëpp di wax yàlla xam na ni mën nañu fajal suñu bopp te nag ma wax leen nit jamono jii nag foofu la ñu toll maa ngi ciy ñëw maa ngi ñëw ci loolu maa ngi ñëw ci loolu dina ñëw dina ñëw waaye li xew ci jamono yi ñun wàccoo nañu ak Sénégal dama leen ne dinaa leen wax tuuti ci man tey may wax te yàlla seede ma am na lu ñu liggéey ci Sénégal ci diir bu gàtt am na lu ñu liggéey ci delloosi senegale yi ci bëgg suñu réew te xam ni lañuy gis feneen ak feneen mënal nañ ko suñu bopp fii ci biir réew mi loolu am na waaye lii ñu fenk génne ko ñun wàccoo nañ ci ak senegal moo tax ma ne man egg naa sama terminus ci seen dossier tappale bi egg naa sama terminus de ndax li xew daaw bi daaw jéeg bi mu xew ba pare ba kilifa yi wax ci ñun jàppoon nañ ni makisal dina am jom dina am jom daal bàyyi li muy def waaye ndekete moom même kilifa yi daleen doon nax da doon essayer jëfandikoo kilifa yi pour mun a am temps pour ne mu ngi dem waajali boppam pour ñëw dal ci kaw askan wi kon kooku amul jom te dafa gaaw fàtte ndax ñi doon yónni ci moom condition yi ñu ko fekke woon mars 2021 mu toog ci këram di jooy ni xale bu ndaw sol ay pantoufle toog jabar ji naan nguur gi yàllaa ñu ko joxoon nguur dafa am bakkan bu jeexee rek jeex na anam yooyu mu nekkee woon ba gëm ni nguur gi jeex na bu ko yàlla jàppalee ba mu génn ci lool war waroon na xool neneen nu muy doxalee nu dul nii te it bu bëggoon réew mi dina moytu luy taal réew mi Macky Sall bëggul Sénégal de moom ak ay ñoñom dañuy jëfandikoo Sénégal pour liñ ci am ci alal waaye gëmuñu senegal moo tax ma ne ñun dossier bi wàccoo nañ ci ak Sénégal dañuy wax respect des institutions de l'institution judiciaire respect institution judiciaire boobu moo tax bi ma juge d'instruction woowee yéen ñu bari da ngeen woon du dem du dem du dem may leen nañu dem rek ndax ñun xam nañ ni lii ay feni neen la te am nañu suñuy preuve yoo xam ne war nañ koo teg ci taabalu juge d'instruction kon nañ dem uyu ji juge waaye bi ñu demee jox nañ juge d'instruction rapport gendarmerie jox ko ay ojo jox ko ay kayit jox ko lépp waaye bi loolu yépp amee gis nañ ni moom Maham Diallo maaxam Diallo du nit ku baax maaxam Diallo xam na ni moom fen na fenal na boppam fenal na justice fenal na askan wi yëpp waaye bettu ma ndax anam yi ko tànnee xam nañ ko fi ko tànnee Sénégal yëpp xam na ko te lii mu def nii dina ko topp ba dundam di jeex parce que du yombee noonu ah comme nag def nañu loolu ñun jàpp nañ ni suñu terminus egg nañ fa kenn duñu këll-këllee kenn duñu fontoo kenn duñu jaay doole suñu terminus ci dossier bi egg nañ ci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 mu ñaanal ma ma jël sama avion yow li ma bëgg a wax foofu mooy man sama testament def naa ko ba pare dama bëgg ngeen déglu ko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 ak suñu mbokk yi nekk ci diaspora yi est-ce que pare ngeen est-ce que pare ngeen daañu xeex de